na تاله مع السهاب ثم تال بيته المجاب والخلفاء ثم تابهينا والأولياء ثم لو رهينا والعلماء العاملين المخلصين وكل من تبعهم ربي أمين فيهم معك مثل معينين حتى يكون معهم لا ينفدون في الليل والنهار ليس يركلون وجعلوا ذا شفاء بالأمراض لكل من شربه يا خالد waaw kon sëñ Bamba jërëjëf sant nañ bu wér ci présentation am na solo lool léegi ñu jàll ci xaaj bu njëkk bi xaaju ñaareel bi sax ndax bu njëkk bi kuréel gi taxawee nañ ko ak njàngu alxuraan bi ci suba gi ñuy sant mboolem ñu fi teewoon rek ci njàngum alxuraan bi ak njàngum xasida gi yal na leen Sëñ Tuubaa fay te dafa leen tawféex ak ngërëmam kon ñu jàll ci xaaju ñaareel bi mu jëm ci wàllu waxtaan wi te waxtaan wu njëkk wi sëñ Jiili mu sëñ Sidi Moxtaar yal na fi yàgg te wér yal na fi sëñ Sidi Moxtaar yàgg te wér ndax ak yàggam fi njariñu lislaam yëpp la ndax diiru ba mu fi nekkee taxaw fi taxawaayu Sëriñ Tuubaa ba léegi xel yépp dal na dajalewaat ne lislaam gi waxaat ni yoon wi mu ngi nii kon yàlla na fi yàgg te wér te lépp lu mu sumb ci yoonu Sëriñ Tuubaa sumb ko ci lislaam yàlla na ko suñu borom bàyyi ba mën koo àggale bokkook jullit ak taalib yépp kon sëñ jili kàddu gaa ngi noonu bismillaahi billahi min asheytaani wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkin ixwat alislaam ayuha sayidu wa saada naxayikum tahiyat alislaamiya masxubatan bi asna tamaniyaat wa taqdiraat xaailan lakum asalaamualeykum wa rahma wal baraka alayna wa aleykum nusallim jamihan sukuran wa innaas kibaaran wa sixaar kama nuxaddim fi salaami fadilatina a Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké xalifatul haam li taifatil muridiya nadmo lahal jalil an yukallilahu najaata wal fawsa illaa an yarisa allahu al arda wa man xalayha bi al abar sayxil xaddim xaddimi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci rente ba tedd bi sallallahu alayhi wa ñuy gërëmaat sunu yaakaar cheikh ahmadou bamba xaadim rasul di baalu àq mbooloo mi yépp te di leen baal di ñaan yàlla nañu yàlla boole baal mboolem ñi fi ñëw yépp liñ fiy sàkku si yàlla na ko sëriñ Touba def jaare ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu am mbégte ak kontante ci fekk gi nga xam ne yàlla def na ñu fekke waat ko màggal gi ñuy taxawal Cheikh Mouhamadou lemin baara fii ci France te mbokki taalibi yi jëwri ni Cheikh Mouhamadou lemin Bara yi di ko taxawal bu ñu ci tuddee Cheikh Ahmadou Bamba Thiam ak Cheikh Abdoul Aziz Guèye ak mboolem ñi nga xam ne ànd nañu ñoom liggéey bi yépp te ñu nekk ay jëwrin ci kër Cheikh Mouhamadou lemin ñuy jël nuyoo boo xam ne mi ngi jóge ci Cheikh Sidil Mokhtar tahiyatan min sahadati Cheikh Sidil Mokhtar jëme ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy waa France gii te nekk ay taalibe Serigne Touba yi nekk ci kër Cheikh Mamadou Moustapha ñii bokk ci kër Cheikh Mamadou Fadal ba njaboot gu Serigne Touba gi jeex takk ndax kër gu nekk teew nga fi ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bi fab nuyoo boobu teg ko ci Cheikh am loxol Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Abdoul Aziz mu tegal ñu ko ci loxol imam ak mbooleem jëwri ni Serigne Touba yi nekk fii ci Paris ah, mu teg ko ci seen loxo sëriñ bi di am mbégte ak kontante ci taxawal gi nga xam ne taxawal ngeen ko jataay yi ndax jataay yi jataay yi sant la rek ak sakku ngërëm ak sakk lu baax kon ñu fab nuyoo boobu ak cant yooyu teg ko ci loxol imam jaare ko ci ñaari jëwr yi ñu tudd Ahmadou Bamba ak Cheikh Abdoul Aziz ñu teg ko ci seeni loxo ñu jaaral la ko ci mboolem njabootu maam borom Tuubaa gi fi nekk yépp wala njabootu lislaam gi yépp sax moo xam tarixa bu waay mën a bokk te teew fii ci màggal gi ngir ànd kook ñun jël nuyoo boobu nag di ci jiital Cheikh Abdoul Aziz ibnu Serigne Basiru ibnu Cheikh Mamadou Lamine moom mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi tamati ko sëkk nag ci jikko ci comportement ak ci mbooleem loo xam ne Serigne Touba soxla na ko ci jëwrin soxla ko ci kilifa di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp comme niñ ko lime góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwun kenn xam naa bu ñu naree toppee noonu nuyoo bi mën naa yàgg te maanaam waxoon nañ leen nuyoole leen mboolem ñi fi teew ñëpp di góor di jigéen ci njëlbeenu wax ji waaye tey di bis bu am solo ci diine lislaam bis bu am solo ci yoonu murit bis bu am solo ci biir kër sëriñ tubaa waaye bis bu am solo ci biir njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ah bis bi nga xam ne ñi ngi koy def te taxawal di ko taxawal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara fii ci France ñu koy wax màggaluk Mbàkke Kajoor di ko defal sunu jàmbaar ja Cheikh Mouhamadou lemin te jamono jot na ci ñu xam Cheikh Mouhamadou lemin ci li ko yàlla may ci kim doon maanaam ñu xam dëgg dëgg Cheikh Mouhamadou lemin xam ne ku yàlla baaxal la te ku fees dëll la ak i may loolu danañ ci ñëw ci kanam Cheikh Mouhamadou lemin at mu jot danañ leen wax lan mooy cosaanam kan mooy waajuram wu góor kan mooy waajuram wu jigéen toppe leen ko noonu waaye ren dina am luñ ci dolli tuuti loo xam ne ci ay njàngat lay doon lu jëm ci ay mbindam ndax mbind day lu am solo ci kilifa rawatina boo jàngee ba xam li nga war a jàng lépp waaye Cheikh Mamadou Lamine Bara yàlla da ko cee may loo xam ne neewaay na kum ko may du ma ni sax ci yoonu murid waaye ci diini lislaam nañu bàyyi xel bu baax ni ginnaaw sëriñ Touba ci yoonu murid ginnaaw sëriñ Touba ci nit ku ñuul kuy dox ci kaw suuf Cheikh Mamadou Lamine Bara moo ëpp lu mu bind loolu rek. lu yéeme la ci nit kuy dox rek ci kaw suuf tey taalif téere ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci ëpp lu mu taalif loolu nag lu leer naññ la loo xam ne rek duñ ko wax bàyyi ko noonu waaye dinañ leen ko leeral bu baax waaye taalif bi yan qualité la am moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara taalif yi muy taalif jëme ko ci yàlla sunu borom yii mu jëme ko ci tagg Seydina Muhammad yi mu da jële jëm jël ko jë jëme ko ci delloo njukkal sëriñ Touba xam nga tey boo nee nit ka baax na dañ naan ko ko jur lu mu bind fu mu sanc kan la defar loolu moo am solo ci kilifa diine kii waajuram wu jigéen wax nañ leen ko mooy soxna Aminata Lo waajuram wu góor Cheikh Ahmadou Bamba lañ koy wax mu bokk ndey ak baay ak ma Mouhamadou faadal waaye bokk ndey ak baay ak Serigne Modou Moustapha loolu tax Cheikh Mouhamadou Bara fees dell nag del del del ndax namp ci soxna Aminata Lo ci saahir wala batiku namp ci Cheikh Mouhamadou Fadal yaayi Cheikh Mouhamadou Fadal loolu ñaari cër la yoo xam ne bu ko bu ko dajalee rek même bu ko Serigne Touba jurutoon rek kiimaan lay doon te loolu lu yéeme la moo tax Cheikh Mouhamadou Fadal ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bari luñ bokkule ndax may yooyu yi nga déggoon ñu naan dañ koo may Cheikh Mamadou Fadal dañ ko may Serigne Baara tey muy ñaari may yoo xam ne benn bu ci nekk benn bu ci nekk bu bu bu Serigne Touba toogoon rek jox ko Cheikh Mamadou Fadal wala mu jox ko Cheikh Mamadou Lamine doy na sëkk du jarate ñu naan kii moo jiite lii wala kii moo jiite lii benn bi ci njëkk mooy biñ may Cheikh Mamadou Fadal mooy wa wahabnaa lahum min rahmatina wa jaxanaa lahum lisaana siddiqin aliyan loolu lu mu firi mooy yàlla baaxe na Serigne Touba. mu baaxi Cheikh Mahamadou faadal ba yàlla def ci moom kiimaan goo xam ne siddit gi nekk ci ron suufu làmmiñ bi su yëngutoo lu mu soob suñu borom da koy def lu mu soob Cheikh Mahamadou faadal bu siddit gi nekk ci ron suufu làmmiñ bi yëngutoo rek yàlla def loolu moom nga dégg Sëriñ Tuubaa ni mbootum kun bi ko ko yàlla joxe daf ko koo fab dénkaat ko ndax place bu mu xaj nekkul ci kaw suuf waaye dañu ko li ma la koy dénk dénk nag saa su ma bëgg saa su ma bëggee jëfandikoo mbootum kun mi ci sama coobare jaare ko ci yow na nga ko def ndax wa kullu ma aradtuhu minka faxal la ko wax mbootum kun mi jël ko waaye lépp lu ma bëgg ci yow na nga ko def yow yàlla suñu borom waaye jël ko rafaatale ko Cheikh Mamadou Fadal mbootum kun mi nga xam ne si mu Cheikh Mamadou Fadal lu mu wax yàlla suñu borom bi da koy def ci lu gaaw beneen ba ca topp mooy li ñu wax asirul masun moom la ñu jox Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sirul masuun dégg ngeen ñu naan moom la ñu may sirul masuun xar baax la fee sa bani guñ bay baa ko lëm ci xarnu bi sirul masuun lu yéeme la moom la sëñ Tuubaa naan axfaaliya sirran masuunallah hubban wala ilaha illallah Abu Yazid al Bustami yàlla mayoon na ko may goo xam ne ci nii ni ñuy dunde naan kii sawara la jëm ak ki kii na la jëm ak sama programme maa ngi ko teg ci julleeg maa ngi ko teg ci eh, eh, sàkk asaka ngir dem àjjana Abu Yazid al yàlla may na ko loo xam ne bu nee yàlla suñ borom bul fayal sawara bu mu amati fi taxawaay bi si penc bu mu amati yàlla da koy def waaye xam-xam boobu Abu Yazid al Bustami yoroon dañ koo rafaatale Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Xaadim Rasul bu waxee yàlla ne ko bi si penc ñu naroon a taxawal sawara si am dindi ko yàlla suñ borom bi tabaraka wa la da koy dindi moo la war a ñaan moom la ñu may ma masun xar baax la feese ba ni guñ bàyyi baa ko lëm ci bi te loolu li koy firndeel du wax maanaam sa tanaa la maqaamit yax bituka fii min jami am saalika misaal la ci daf ko wax ni ko dafa am benn lettre boo xam ne dafay jóge ci yàlla suñu borom jaar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci sëriñ Tuubaa ñëw ci Cheikh Mouhamadou Lamine lettre boobu kero bi ko sëriñ Baaree jot soxna Fadja taawu sëriñ tubaa lan ko jox moo ko yët seex Mouhamadou Lamine daf ko wax ci lettre bi ne ko sa tanaa la maqaamit yax bi fii min jami am waa wa anna kulla man kaana maxaaka jamihan laa yaraw na illa ma yasuruhum wa yanfahum fi dunia wal axira Mouhamadou Lamine maa ngi lay jox benn maqaama benn cadeau boo xam ne ku dul yow dana la ci ñee te mooy lan maa ngi lay may loo xam ne képp ko ànd ak yow wala mu bëgg la wala mu sopp la wala muy sab taalibe du gis lu dul lu koy bégloo àddina ak alaaxira daane ko maqaame bi ko yàlla defal ci képp kuy njabootam walla képp kuy soppeem ñoom dañuy dem àjjana te fa ñuy taxaw di peese jëfi doomu aadama yi duñ fa taxaw wahum yadxuluna al jannata bi xayril xisaabin ñoom dañuy dem àjjana directement luñ mën def ci àdduna yàlla def na leen ko topp waaye ëllëg yowmal xiyaam fa nit ñay taxaw téere jëf yi wàcc waa kër Cheikh Mamadou Lamine Bara duñ fa taxaw wahum yadxuluna al jannata bi xayri xisaabin wala taskuk fi kaw ni hansa min allahi wa rasulihi ilayka wa minni loolu la wax wala tas ko bu kenn sikk sàkk ni wala tas ko fi kaw ni xansa lii may wax minallaahi mi ngi bàyyi ko ci yàlla wa rasulihi ak ci yonente ba ilayka yi ñëw ci Mouhamadou Lamine Bara wa minni tukkee ci man si Ahmadou Bamba loolu leer na bari na fu ko détaillé fu baree bari wa man yakun muridan min talamisina kafan rabbal anaami xaara wa naara Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo bind ci xalimaam ne ku nekk sama taalibe doo am gàcce àddina te doo sawara wa man yakun muridan min talaamisina kafaahu rabbal anaami xaara wa naara loolu rek doy na sëkk waaye Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi mu nekkee doomu Sëriñ Tubaa te di yàlla may ko ci fànn yëpp te li ko yàlla mayee fi lu lu yomba misaal la ndax soxna Aminata Lo moom it di waajuram bu jigéen dañ naan su suma la bu ma juumul moo njëkkoon a jaayante ci diini lislaam moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam Cheikh Cheikh Mamadou Lamine Bara waajuram bu jigéen nag moo njëkk joxe bàkkanam ci yoonu murit dafa am bis sëriñ tubaat toog soxna Awa bu sa toog Serigne Bara toog Serigne Touba xibaar leen ni leen yàlla dafa ma xamal ni suñ ñeenti ru yi dafa am bum ci soxla soxna na Lo ni bërët daane ko yéen ñett ñi yëpp yéen a ma gën te seen dunduk benn fan moo gën sama dunduk at bu dem dee am man mi may dem daan ni bu bu lii reyee ñëwee yàlla na ma rey ñaan ko teguñu ci ñeenti waxtu natt ba dal ci kawam seex soxna Aminata Lo sedd guy soxna Aminata Lo Sëriñ nee na mi xibaar ni bis bi soxna Aminata Lo àdduna keroog la rongoonam mosa tuuru ci dënnam ngir soxna Aminata bi mu daanoo ngir ngir di wuyu ji suñ borom dafa fekk Mouhamadou Lamine Baara juróom-ñaari weer yu manqué la am nee na xamul ci saahir ni soxna si wàcc na sëriñ baa ngi julli waxtu timis muy raam jëm ci soxna Aminata Lo ngir nàmpi moom Cheikh Mamadou Lamine fekk yàlla moom na ko moo tax sëriñ Tuubaa ne nag keroog la sama rongoñ ma sa tuuri ci sama dënn ngir Mouhamadou Lamine Bara waaye yëmul foofu bi mu fi jógee dan ko jox soxna Awa bu sa di waajuru mu du faadal mu yor ko féete ko fa ko soxna Aminata Lo féete woon moo tax sëñ Baara xam-xam bii mu am may yi ko yàlla may te àdduna commencé koo xam te may yoo dégg ñu koy wax may Cheikh Mamadou Lamine Baara yoo dégg ci àdduna may yi ko yàlla may ci bàmmeel may ko ko ëllëg bu saa taxawee moo ëpp ndax da koo leeral ci lu bare bari ku ne xam na ku lu waaye gàtt-gàtt xam-xam xam ne Cheikh Mamadou Lamine Baara état bu wàlliwu moom jéggi na ko ndax wàlliwu maanaam moom dafa xeeb wàlliw ndax daana wax ni wàlliw yi suñu borom yi bu ñu dajee bu ñu mosaan a dajee bu mënee tëll ñoom ñëpp dañuy mel ne ginaar yu gis ginaar gu leen man ndax ñoom ni ni wànq yi def maanaam maanaam ni ñu koy waxeeti gerte su ma leen jegee noonu la seen lur seen leer yi seeye ba jeex takk ngir leer gu ma suñu borom bi tabaraka wa taala defal waaye taalif taali téere yi nga xam ne wax naa ko junj naa ko sànq ni taalif na ko tey dañ leen ci jukkil ñetti téere maanaam juñu leen ci tuuti ci maanaam méthode bi nga xam ne Cheikh Mamadou leen Bara doon na ci woy xam ne jommal na mbooleem xarnu bi ci wàllu mbindiin waxuma la nuróole gum ko nuróoleeg sëñ Tuubaa nag ndax waxoon naa leen ni leen dafa nuróoleeg sëñ Tuubaa mbind ba nga xam ne tey boo buñ ko tegoon ku xam maanaam ci wasnu yi ñuy tëggee ak maanaam afal yi ñuy tëggee mbooleem fànni xam-xam yi danga naan lii Mouhamadou Lamine wala lii Serigne Touba la loolu moom ñëpp maase nañ ci waxal ko ko waaye buñ ci jëlee ci mbindam yooyu bu ci mel ni mu nawirul bunyaan te moom ngeen tuddee seen seen daayira bi mu nawirul bunyaan day xasida gu doy waar xasida gu yéeme boo xam ne dinañ leen ko tasal tey ci ci ci lu gàtt mu nawirul bunyaan sëriñ Baara da koo taalif waaye na ngeen xam ne ci biir xasida gi mboolem turi yàlla yi mi ngi ci biir mu Munawwirul Bunyaan mboolem turi Seydina Muhammad yi mi ngi ci biir mu Munawwirul Bunyaan ak mboolem tamit saari alquran yépp mi ngi ci biir mu Munawwirul Bunyaan loolu rek kiimaan la beneen bi ci bi ci des mooy saxaadatul abraar Cheikh Mamadou leen baaraako bind ndax waxoon na leen ko fi moo bind Munawwirul Bunyaan sahaadatul abraar saxaadatul axyaar tabul fuaad rumtu bi ahlil badri yaa rabana antal muhin yaa faahilan lima yurid hamdan li rabbi xattaya ba daara busraaka yaa adda tuba ak sirul masun yeneen yi nga xam ne wér na ba ñu génnee ko mool ko ni lii Cheikh Mahamadou Lamine Bara ko bind bokkut ak nag yi nga xam ne ah amagun ci lu ñu leer ni lii moo ko bind waaye lii moom saytu nañ ko ba xam ne ci loxol Mahamadou Lamine Bara la la génne beneen bi ci topp daf ko def muy saadatul abraar xam nga fee wax naan la turu yàlla yëpp ñëw na turu Seydina Mohamed yëpp ñëw na turu saari alxuraan yëpp ñëw na te loolu ñuy yor xasida gi mën nañ ko gëstu gis ko ndax waxuma la ci ma maanaam matière bi mu bindee saadatul abraar euh, kii munawirul bunyaan ci gis ko mbind mi neex nga gis turu yàlla yi mu neex nga gis turu Seydina Mohamed yi mu neex ngay gis ay alxuraan yi mu neex mais benn benn buy woy ci secret bi mu woy ndax bu nee baddaxtu bil fatihatil muhassama mi ngi wax njariñul fatiha wa suratul baqare al mukarama maanaam dafay wax benn aaya bu nekk ak ni la tuddee boo indee fatiha danaan al muhasama nga indi baqara mu ne al mukarama nga indi maida ali benn bu ci nekk ak turbam la jox ba alquran jeex dégg ngeen nag yëmut foofu waaye daf na dafay woy ba mu jàng mu ni yàlla maa ngi lay ñaan bi sirri maida maanaam maa ngi lay ñaan ci sirru maida nga defal ma lii ak lii moo tax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yàlla jege ko yonente bi jege ko Serigne Touba jege ko lool lu ko neex da koy jëfandikoo ci coobareem 100 pour su ko defee xasida googu ñuy wax tamit saxaadul abraar dama leen tuddal fii nii xasida Munawwirul Bunyaan turi suñ borom a ngi ci ay alxuraan a ngi ci turi Seydina Muhammad yëpp a ngi ci waaye saxaat bii may bëgg a wax nag da ko tas isib yi la wax ñaata la wax nisf yi ñaata la wax robe yi ñaata la ah, wax aaye yi ñaata la wax tomb yi ñaata la wax baat yi ñaata la léegi nag bu dee yow mi nga xam ne da nga jàng arab boo demee rek tiim ko da naan fii fu mu ko waxee fii fu mu ko waxee ndekke par benn baat dafay jël secret di ci woyee danaan kalaamu lafsullahi fil qur'ani saadun wa siinun wakasa siinaani noonu la koy woyee daf na boo bëggee xam baatub laa ilaha illallah baatub la allahu ñaata la ci alquran nee na la mi ngi mekk deux mille trois cent euh, yéen ñi jàng arab ngeen wax ma kalaamu lafsullahi fil qurani saadun mooy juróom-benn fukk wa siinun trois wakasa siinaani mooy deux mille deux mille trois cent soixante nee na moom la baatub allahu ñëw ci alquranul karim boo ko bëggee xam ci xam gu simple noonu la ko indee beneen andi neneen andi neneen ba lépp jeex andi robe yi andi nisf yi beneen téereem bi ñu wax sirul mason nga xam ne moom la ko góor yàlla yëpp nag wege la ngay dégg ñu naan ah sëriñ bi de mën naa listixaar sëriñ bi mën na lii sëriñ bi mën na lii sëriñ bi listixaar yàlla daf lay xamal lu ñëwagut du lu araam nga mën a jël saaru alxuraan wala ay alxuraan jël ko waxtaan ak moom mën a génne li nekk ci biir ci njariñ xam li xew suba Mouhamadou Lamine Baara loolu amoon ku ne xam na ne sirul masoon moom sëriñ Baara moo ko moom moom moom gu wér te yéen ñi nga yéen ñi xam secret bi yor xasida gi lim leen di jariñ xam ngeen ko sirul masoon boobu nag daf cee wax ni an nasiru fatihatil kitab wa jami asma wa jami asma illahi taala fil fatihatil kitab kon ndeke li ñu doon wax lépp lu mu bari bari yàlla nga ko fab secret bi dëxañ ko ci faatihatul kitaab muy alhamdulillahi rabbil alamin waaye wa an nasiru faatihatul kitaab fi maliki mi diin wa an nasiru maliki yawmi diin siru maliki yawmi diin boobu ngay xam siru bi fil alif alif gi la ko yàlla dajale nga jël alif gi an nasiru alif bil baa baa nee na baa gi nag nuxtu alfardaan yi aw nuxtul fadail jëmmi baa ku ne xam na ni mboolem yu baree bëri ci baa lañ koy defee même maarali taali bomb yi nga dégg yëpp secret bi ci alquran la jóge waaye nag jiyee ji yal nañu ci yàlla musal sëñ Baara wax na leen nag baa bi bu ngeen ko bëggee xam te du ngeen sonn dama leen yebale ci sama baay Cheikh Ahmadou Bamba mu tekkil leen ko ndax tey jii boo tiimee baa yow mi nga xam ne xamoo dara te tiim baa sëñ baara waxal la boppam ni la mboolem ay alxuraan yeeg mboolem faatiya ak mboolem lu mu mën doon ci àdduna yàlla mi ngi fab secret bi denc ko ci baabu ndaw bi nga naan waaw nu mu ci nekkee doo ko xam léegi nag sëñ Tuubaa am na lu mu ci jot a junj nee baa bi boo koy leeral daf lay wax bismil illaahi léegi nga naan baa asmi nee bismil illaahi mooy baa bi daan ñu ne ko bismillahi mooy lan mu ni wa huwa rahmaanu wa huwa rahimu xaada lii amaan xaada moo gis nga sëñ tubaa nee na mboolem loolu li ñuy bari bari bari yàlla wammatal na ma secret yi yëpp jox ma ko man sëñ tubaa ma ci def sama coobare loolu moom dégg ngeen ko bismillahi ñu ne ko lan mooy loolu mu ni wa huwa ndeke ndekkee bismillahi ci la rahmaanu dugg ci la rahim yi dugg sëñ tubaa nag ni xaada wammat na lii ñel man sañ tubaa xam xam ma fi may waxeem su ko defee sëñ baara ci sirul fatiha boobu dangay dégg ñu naan jinne dayo bi la am rawaan dayoo bi la am ismulaay ahsam dayoo bi la am mel na tey nga jël maanaam sirru maknun ñi nga xam ne dañuy jàng lasraar wala ñi nga xam ne dañuy jàng xadat ruuf xam nañ maknun lim bi ñaata la ak maanaam bu ma juumul boo jëlee miim gi lu lay jox quarante nga jël keef gi mu jox la ñaar fukk 20 nga jël nuun gi cinquante geneen nuun gi 50 waaw gi 6 léegi boo boolee lépp lu mu lay jox ñaari nuun 100 la lay jox ah ah ñaari nuun lu lay jox 100 léegi nga indi waaw gi 106 boo boolee nag. maanaam ñu koy waxeeti kaaf gi ak miim gi 166 mooy la waaw léegi siru boobu mooy laa ilaha illallah boo jëlee siru boobu nag Cheikh Mouhamadou Lamine Baara daf ci xam li mu peese man ci jëf ci coobareem ndax tey buñ ne la jinne maqama bi la am ak dayo bi la am te jinne dañuy wax ni maanaam rawaan moo ko ëpp doole gis nga nit léeg-léeg mu am jafe-jafe gis nga seex moom Mamadou Lamine Bara ba ci Sëriñ Sidi Moxtaar mi léeg-léeg nga dégg ñaan dañoo ko ci indi mu feebar maanaam ba dof léegi bi ñu ko indi dañ ko ñaan rek mu jóg dem loolu dama ni la jël kaasum ndox naan ko moo gën a yomb waa kër moom mu Lamine Bara looloo gën a yomb ci ñoom jël ndox naan ko moo gën nit dof nii wala rab jàpp ko ñu defar ko mu jóg dem xam nga loolu danga koy delloo ci alxuraan comme ni ñu ko sëriñ si jàngale problème mu doomu aadama ci ñeent rek ci lay tënku léeg-léeg nga dégg ku naan la man dama umu léeg nga dégg ku naan dama amee cat léeg-léeg nga dégg ku naan raba ko jàpp wala rawaan rawaan nag moo sonal ku yàlla kuy dox fii nga nekk rawaan moo moo la sonal parce que moo lay conditionné Cheikh moom leen baar nag da ciy aayoon ci mën a communiquer toog fa mi toog wax rawaan bi ni ko baal li ngay def ba su fekkee jubóowoog moom mu fexe ba nga jubóog moom mën a dund dunduk libre ndax rawaan dafa garaaw rab garaawul jinne garaawul rawaan daf dañ ni jinne boo doon misaal dooleem mi ngi mel ne nga fab fanweeri naari góor boole leen boole seen doole ya ne nañ doole jinne noonu la toll waaye doole jinne li mu am am doole doole rawaan ci doomu aadama te ku nekk kuy dox fii am nga rawaan waaye léegi rawaan doole ju ji may bëgg a tudd rawaan am ko su fekkee yow da ngay dund ba noppi amoo lu saafara rawan boobu yow foo jëm moo tax nit dina dund ba xëy faatu te du tekki dara ngir rawan bi ko yàlla booleel ban rawan xamu ko mi ngi dox rawan dañ nit ëppee na doole jinne jinne ji lay sonal rawan ëppee na ko doole fukki junni ak ñaar doole ju tol noonu moom la rawan am ëppee na ko junni fukki junni ak ñaar doomu aadama bu nekk nag yàlla sunu borom bi tabaraka wa la boole la ak loolu ci misaal mooy ku nekk am nga problème ñii seen rawaan lii la composé ñii seen rawaan lii la composé ñii seen rawaan lii la composé biddiw sàngam biddiw sàngam biddiw sàngam biddiw sàngam su ko defee xam-xam boobu yàlla da ko mayoon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu koy jëfandikoo ci coobareem nu ko neexaw waaye nag mooy xes ak sirul masun bu nu ñëwee nag ci taalibeeg Cheikh Mouhamadou Lamine gi nga xam ne ñi fi nekk ñëpp moom lañuy sàkku ak xam-xam bi ak ragal yàlla gi ndax da leen bàyyi xel bu baax léeg nga dégg ku naan man de xasid ak sàngam mooy sama sëriñ xasid ak sàngam laa yaakaar xasid ak sàngam moom laa def nii mais da ngeen gis ñu koy wax te fi nekk nii ki la gën a jàpp xasida gu mu mën a jàpp su xoolee boppam moom bu fekkee yàlla rek tax na di ko wax fi mu tolloon daaw ci heure bii ak fi mu tollaat ñooyam xasida ba ko sëriñ tubaay bind maanaam tey ñu dem ba àdduna bépp di ko màggal ngir nag dooley xasida ak sëriñ tubaa maanaam ci maanaam secret bi nga xam ne yàlla may na ko ci ci ci ci ci ci ci xasida ak barke bi xasida am nga xam ne ñëpp nga koy màggal leer na jaadu nañu leeralal leen ci tuuti ngir ki koy jëfandikoo mën a xam fi mu koy jaar gis nga julli li muy li muy for for lamam maam Seera Fall doon def muy laa ilaha illallah moo gën a for julli ah alxuraan a ko wax di inna salaata tanha anil fahsai wal munkar wala sikrullahi akbaru te di leen bal ak suñu yitte rek mooy jullit ñi fexe ba am benn programme boo xam ne kenn ku nekk da nga mën a dunde ci lislaam ci ni nga ko comprendre waaye nag ci mu dëppook li yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla defal ñu am jàmmi àddina ak jàmmi alaxira ñi fi teew ñëpp yàlla faj seeni ajo di gërëmaat bu baax Cheikh Ahmadou Bamba mii ak Serigne Abdou Assis di leen sant ci seen taxawaay li rey na lool sant waa Paris gi yëpp ci seen taxawaay ndax fii bañ fi duggee ba tey ci yar ak teggin lañu fi gis ba ngeen fi toogee kenn coowul kenn waxul ñëpp sukk di fi sàkku ci Serigne Touba loolu rek lañ fi gis gisaatuñ fi leneen tey kenn ku nekk mën naa ñëw doon sa magum boppum kër nu la neex wax nu la neex def waaye yéen day defu leen noonu sentir naa fi l'islam sentir naa fi lu baax sentir naa fi Serigne Touba sentir naa fi Cheikh Mamadou Lamine kon yàlla nañu fi dajeeg ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërë ngeen jëf euh, maa ngi jégalu bu baax ndax sëñ bii fi ñëw toog li mu fi wax bara kon na ñu ngeen dégg ñu ñëw ci sunu kanam dina fi wax te lii mënu fi leeral ak séegul ci sunuy nopp kon nag mu ñëw fi jóge tuubaa ñëw ba fi waxtaan fi waxtaan wu rëy wu tollu nii ba jeexal di jóg léegi nu nu xojj di ko xool du mbirum tër bi moo tax ma bëgg képp ku toog ci saal bi jóg làmp poosam joxe ëdd yi sëñ Touba ngir jëmmi maamam ndax bu ma bul woon li mënu wax képpit nag war na nu dajale ëdd jox ko ko bu nu dajee ak moom balaa dem rabat ci nag bi mu fi toogee ba léegi dina waxal wax joo xam ne li ko léegi bariwul kon nag yéen bokki taalibe yi li nu warloo ak moom mooy kenn ku nekk ci yéen jóg làmb poosam laajal ko ëlli sëriñ Touba ngir jëmmi sëriñ Touba tey dama daan wax Cheikh Fall jógal yor mbaxana wër bokki taalibe yi waaye léegi loolu waxuma ko ndax jéego yi ngeen di jéggi ci seen bank yi ngeen toog ñëw fekk ko fi jox ko ëlli ngir jëmmi sëriñ Touba yiw yi ci nekk ak yool boobu laa leen yéene moo tax bëgguma Cheikh Fall dogal leen ko kon nag nag kenn ku nekk ci yéen jóg làmb poosam ñu jox ko ëllëg sëriñ Tuubaa balaa jeexal loolu mooy li nga xam ne moo di loolu sang bi suñ ëllëg sëriñ Bamba ñëw leen yéen ñëpp nag bu kenn des waaw ñëw leen ñëw leen yéen ñëpp ndax yoolu ku jóge ci sa ku jóge ci sa bank ñëw fekk ko fi jox ko ëllëg yàlla boo ko ñàkkateeti tey ëllëg ña sëriñ Tuubaa li déggee yàlla nga ci jiitu ci barki sëriñ Tuubaa Mbàkke ñëw leen làmb seen poos jox ëllëg sëriñ bi wax dëgg yàlla mérito na ko lu waay bëgg mu yokk nag da koy mën a joxe waaye képp koo xam ne la mu yor mënu koo joxe na ko leer ne bu ci dee wutug yokk juum na lu yokk li ngeen am te yàlla jox leen ko li leen delloo leen ko ci néegu bi yàlla liggéey bi yàlla bi da ngeen koy jox ñi nga xam ne ñu ngi taxaw ci liggéey bi yàlla bi waaye ku ku yor la nga yor toog ca na la leer noonee ngay toogee loo buuse sant it sa njiili waxtaan wi am na solo lool war mënees na see jànge lu bari ci jikkoy sëñ baara ak doxalinam ak dëppoom diine ak gëm sëñ Tuubaa te yaakaar ko topp ko kon ñu ngi lay sant bu baax at mu ne nga teewee ko ànd kook nun ñu ngi ñaan ci kàttanu sunu borom yàlla na la fi sunu borom yàggal bàyyi la fi ci sunu kanam jërëjëf kon ñu jàllaat ci weneen waxtaan wi des te sëñ Abdou Aziz majalis buñ ko waxee rek ku nekk xam na liggéey bu yaatu bi ak gis-gis yu xarañ bi mu am ci doxalin wi kon ñu jox ko kàddu gi sëñ Abdou bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa ashaabihi wa xadimihi wa sallama tasliman Euh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu di ziar mbokk yi teew ci euh, barab bi euh, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi kilifa yu tedd yi ñu fi dajeel di ci jiital imaam Bousso nga xam ni yàlla def na. moo féete ci kër sëñ Touba gi nekk Aulnay di ko sant bu baax ci teewaayam di ko di jaarale eh, teg nuyoo yooyu ak ziar yooyu mu jottali ko bépp kilifa boo xam ne teew na ci jataay bi di ñaan suñu boroom mu defal leen féex dëgëral seen taxawaay ba lépp lu ñu yéene liggéey ci lislaam ak ci yoonu Serigne Touba ñu mën koo àggale niñ ko bëggee di nuyu ba tey di ziar. Euh, daayira bi nga xam ni moral bunyaan euh, ginnaaw yàlla ci seen pësteef ci la màggal gi mën a amee fii euh, nga xam ne buñ ñu ci tuddee rek sëñ Abdou Aziz Guèye ak sëñ Bamba Thiam ak ñëpp képp koo xam ni seqal nañ ko liggéey bi rek mu doy kon ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci seen pësteef di leen ñaanal ñoom it lépp luñ ci yéene rek suñu borom defal leen ko ci barke Cheikh Mamadou Lamine mi tax ñu def bis bi Euh, xewal yooyu mu tasaare ko ci mboolem taalibe yi ñi fi teew ak ñi fi teewul ak mbooleem jullit ak fu ñu mën a nekk euh, di nuyu tamit ci ziar suñu rakk yi ñu fi àndal muy sëñ Abdou Latif sëñ Jéeli sëñ Modou Lamine Baara ak suñu mbokk yi fi nekk ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziare. Euh, xam naa li ñuy dolli ci waxtaan wi mel na ni du xaw a bari ndax. Euh, mel na ni suñu rakk ji ñu fi jiitu muy euh, Cheikh Abdoul Khadr muy sëñ Cheikh Sidi Mokhtar euh, wax na dëgg-dëgg li nga xam ni mooy mooy solos bis bi ndax bis moom kuñ ko tuddee dafa mel ni li gën a farata mooy ñu fàttali kooku mooy kan ak yan taxawaay la amoon ba yàlla defal ko lii mu ko defal ba bu fi jógee sax lu mat téeméeri at wala lu ko lu ko jege wala lu lu ko ëpp ñu koy fàttaliku te mu nekkoon feek eh, ñàkkul ay doomi aadama yu bari yoo xam ni eh, biñ fi jógee la yàlla def ñu fàtte leen kon li ko may ñu koy fàttaliku ba tey eh, loolu dafa jar a waxtaane te yaakaar naa ni asalaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa ñu fas yéene àggale li ñu tàmbali di nuyoo di di ziar suñu kilifa gi fii yàlla def mu teew fii muy Cheikh Mamadou Xaban ibnu Cheikh Mamadou Fadl euh, ñuy sant bu baax a baax ci euh, jëmmal gi mu jëmmal jataay bi euh, te jàpp naa ni bu ñu fàttalikoo li fi sëñ li wax léegi muy diggante Cheikh Mamadou Fadl ak Cheikh Mamadou lamin kon defe naa ni lii lu ko gën a jaadu wala ko gën a rafet amul kon ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal taxawaay bii mu am fii ci eh, Paris ci France ci lislaam bi suñu borom gën ko cee dëgëral mu yàgg ñoo jiite eh, kon xam naa ñu fas yéene eh, tënk rek ay xeeti xam naa sax commentaire lañ koy tuddee ci li fi sëñ jili jot a waxta muy lu mat sëkk muy fàttali gi mu doon fàttali ji koy Cheikh Mamadou Lamine Baara ak li ko yàlla defal ba ñu koy fàttaliku ay at yu baree bari ginnaaw bi mu làqu ci suñuy bët euh, euh, loolu nag bokk na ci tawféex gi nga xam ne yàlla defal na ko ko te xam naa ñun foofu la ñuy euh, jëmale suñu kàddu di sof ci li mu waxoon mooy njaboot goo xam ni yàlla defal na leen tawféex goo xam ni moo ñu may ku mel ni Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te may ko wér toog toogaayu Serigne Touba ndax ci wàllu seetlu rek dafa mel ni eh, temps tooguwaay bii mu toog te murit yëpp ci sant yàlla di ko ñaanal mu yàgg fi eh, ñun dañoo jàpp ni bokk na ci eh, xéewal yooyu suñu borom defaloon Serigne Baara muy feeñ ci jëmm Cheikh Sidi Muxtaar kon ñun ñàkkul foofu lañuy ñuy xaw a jëmale tuuti suñu kàddu rek sof ko ci li nga xam ne seen jiiri leeral na ko te muy lu mat sëkk ngir gën a gis njariñul wala tolluwaayu euh, kii ñu fi Serigne Touba bàyyil muy Cheikh Sine Mokhtar euh, dafa mel ni da ngay war a jàngat li ko jiitu wala li nga xam ni moo lay gën a mën a leeral njariñul taxawaay bi euh, ndax yàlla dafa def bu fekkee da ngay gëstu li ñuy wax perspective historique dafay baax ci li naan analyse kon ngir ñu gis taxawaay bi fi sëriñ bi taxawee te murid yépp di ci sant yàlla Euh, ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg nuñ ko war a déggee faaw ñu dellu ci ginnaaw xool ñu ko fi jiitu woon ñoom yan taxawaay lañ amoon ak taxawaay yooyu lan moo ko sabab euh, Serigne Touba mi nga xam ni moo war a lépp lépp ci moom la tàmbalee ci lépp ci moom lay dellu euh, bi sanc yoon wi am na ay wax yu mu ci wax yoo xam ni jàpp nañ ni ñun moo war a nekk li ñu naan les fondements du mouridisme te loolu bari na waaye mënees na cee jàpp rek li fi sëñ ji li waxoon sànq muy bayit boobu nga xam ne murid yëpp xam nañ ko mooy lil Mustafa nawaytumaa yu jadditu sunnatahu xarra wa inni ahmadu ci tënk niñ koy déggee ndax sëriñ bi rek xam li mu jublu ci ay waxam sama yéene mooy yeesal yoonu yonent bi alayhi salaatu salaam kon dafa mel ni ci baatu yeesal ci la sëriñ Tuubaa taxawalee lim taxaw te yeesal googu jëmul lenn ci dudul lislaam kon liñ tuddee yoonu murit lu lenn lu lislaam koo xam ni sëriñ Touba da ko yeesal ci anam koo xam ni gisee fu ko woon li ko jiitu kon ba yàlla defal ko ci li ko ci defal kon yeesal googu jàpp nañ ni ci la lépp tege ndax boo seetloo da gis ni sëriñ bi ci boppam bi mu ko waxee ba noppi da ko jëfee ci anam yoo xam ni anam yu jéggi dayo yu doy waar xam naa dinañ ci lim aslëf rek ngir leeral moom nan lay yeesalee dëgg-dëgg lislaam ci ay ay fànn yu ñu mën a teg bët bi mu fi jógee tamit mu mel ni dafa dafay bàyyi ñoo xam ne dañoo war a àggale wala boog war a wéyal wala sof ci li nga xam ne sos na ko ba noppi mu yeesal googu xam naa looloo waral mu jëm ci àgg ba ci zurriyatan tayyibatan tujaddidu ndax janabil Mustafa tajtahidu suñu borom maa lay ñaan ay dono wala ay kuutaay yoo xam ni yeesal gi nga xam ne tàmbali naa ko ba def ci lu ci kenn deful mu may ma ñoo xam ne dañ koy wéyal ba saa di taxaw ndax Serigne Touba li ko yàlla may ak jëfam day wara a wéy warta taxaw ba saa di taxaw looloo tax yàlla may ko xalifaam yi mu ko may nga xam ne njabootam googu li Serigne Touba nekkoon di yeesal boo seetloo da nga gis ñoom it ci loolu lañ nekkoon di yeesal ñoom it dinaa ci leeral rek aslëf ci ku nekk ci ñoom fànn yoo xam ne gis nañ ci ne buñ ko seetloo ñoom def nañ ci ay yeesal yoo xam ne moo tax ba yoon wi àgg fii moo tax ba diine ji euh, àgg fii loolu nag bu ñu ko leeralee ci lañ gën a mën déggee kon Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moom dafa jaar ci yoon woowu ñu ko fi ñu tedd ñoo ñu jiitoon jaar moom it yeesalam ci ban fànn la jëm ndax loolu moo ñuy mañ ñun ñi nga xam ne ñoo am tawféexu jamononteeg moom war a xam fu ñu war a teg suñu tànk ngir jàpp ci yeesal boobu ndax kilifa yooyu ñu fi tudd mu dalee ci sëriñ bu mag bi ak ci ñu ko fi wutu ku ci nekk ba ngay yeesal da nga ànd ay asxaaba yoo xam ni ay saaba yoo xam ni muy mbokk muy taalibe yi ak seex si ñoo la jàppale ci liggéey boobu kon ñun ñiit loolu danañu may ñu xam fan la ñu war a jëmale suñuy jëf ba dugg ci tawfeexu Sëriñ Tuubaa nga xam ne yàlla defal na ko kon euh, fi ñuy tàmbalee mooy leeral yeesal ci mooy lan ak lan mooy njariñam euh, ngir dégg ko dañu ci faral di ñun joxe ay misaal muy tajdid muy yeesal rénovation Euh, boo xam ni dina ñàkkul tax ñu mën koo dégg ci anam yu jàppandi euh, islaam dafa mel ni ak garab garab goo xam ni euh, boo ko waxee kon dafa am ay reen am ay bànqaas muy ay branche garab nag ngir mu dund dafa mel ni reen yi moom kenn du ko laal kenn du ko dagg dañ koy suuxat mu gën a gën a gën a gën a gën a bejji gën a gën a gën a màgg waaye mu mel ni nag branche yi muy bànqaas yi léeg-léeg dafay jar sax ñu tagg ko gën koo dëppaleek saison yi ndax loolu mooy tax ba ñàkkul sax garab gi gën a gën a meññ gën a gën a jëm ca kaw euh, loolu li muy tekki mooy lislaam dafa am ay racines muy ay principes yoo xam ni kenn du ko laal maanaam moom la yonte saasam indi mu nekk ci alxuraan ak sunna muy principe yooyu maanaam du soppeeku ci espace du soppeeku ci temps maanaam ci gàttal rek iman islam ihsan du ñu dem ba jëmi jamono rek ñu ne dañuy yeesal diine rawatina ci ñi ñuy tuddee réformistes yi nga xam dañuy àgg sax ba ne jëmi alxuraan sax dañu ko war a xoolaat kon loolu kenn du ko laal wala lu mel ni jiital alaaxira ci àdduna wala sàkku xam-xam yooyu du soppeeku euh, jëf lu baax bàyyi lu bon loolu du soppeeku kon am na principe yoo xam ne ci islaam li fekk saa di taxaw rek du soppeeku loolu moom ay constante lay doon mooy racine garab gi waaye ngir dundal principe yooyu muy racine yooyu dafa mel ni dafa am ay branche yoo xam ni moom ñoo ci ci la mbir ci mbir mi di jaar ngir loolu gën a mën a dund euh, masalan bu ñu nee sàkku xam-xam day day principe ci l'islam du soppeeku ni ñuy sàkkoo xam-xam mën naa soppeeku dans l'espace et dans le temps ndax euh, jamono ñu nekk li leen yàlla may barab bu nekk ni ñuy déggee ak li leen yàlla may kon loolu day dëppoo dañ koy contextualiser dañ koy rénover kon bu ñuy wax diit yeesal ci méthode yi la ñuy wax méthode yi kon mooy branche yi nga xam ni euh, dafa mel ni sax boo xoolee fi Europe da nga koy gis ci garab yi bu saison yi soppi ko dañuy dagg garab yi di dagg branche ngir garab gi gën a mën a meññ kon euh, adaptation boobu du sax loo xam dañ koy def nii rek ngir rafetal waaye dafa dafa bokk ci lii tax garab gi mën a dund kon yeesal mënta ñàkk ci diine looloo waral bi fi yonent yi jógee alayhim salaam euh, nit ñu baax ñi ñëw saa su nekk ni ko xadis waxee téeméeri at yu nekk muy benn indication rek am ñu ñëw di yeesalaat diine ji di ko di ko dëppaleeg jamono ji li mu laaj ngir principe yi gën a mën a dëgër euh, Serigne Touba boo seetloo dafa mel ni loolu la def sëñ bi euh, mbiram lu day waar la waaye mën nañ cee rek jël ñetti euh, fànn yoo xam ni yeesal kooku day feeñ masalan nañ jël ci wàllu xam-xam sàkku xam-xam ñu wane ci ni ci sëñ bi yeesale jël ci wàllu résistance muy daanaka mën euh, na euh, euh, ci bu dee ci jamono yooyu jël tamit ci wàllu yar éducation tarbiya bari na ci fànn yi waaye yooyu rek jàpp naa dina doy ci ñu xam li sëriñ bi am tegtal boog ci li sëriñ bi liggéey ci wàllu xam-xam sëriñ bi bi mu ñëwee fekkoon na ay daara yu bari ci réew mi ndax islaam ni ngeen ko xamee yàgg na ci Sénégal ndax ëpp na daanaka junniy at bi mu duggee Sénégal ndax dafa am na sax ñu naan onzième siècle ci la ci la fa dugg nga xam ni kon islam yàgg na ci Sénégal ay daara yàgg na fee am njàng yàgg na fee am xam-xam njàng alxuraan ak yëpp am ni boo xoolee histoire am sax ay maamam maaram ni mu ràññeekoo ci fànn yooyu ba ci Maam Mor Anta ni nga xam ne ñëpp xam nañ li ñu naan sommité intellectuelle ci jamonoom ci la bokkoon kon sëriñ bi inventé wul daara dafay fekk daara ñuy jàngale ci ay téere yu bari ay risaala ak yu baree bari umul barahin kon téere yu bari woon na waaye bi bi ñëwee gis ni moom jamonoom laaj na ñu ñu instruments yi ñuy jàngee muy méthode yooyu moo waral di ngeen ko xamee ci njëlbeenam rawatina mu jëloon téere yu bari yi nga xam ne amoon na ci jamonoom muy des ouvrages de référence mu taalifaat leen nga xam ne ay wesar lañu woon ay prose mu versifier leen lim ci jublu wax na ko mooy yombalal njàng nga xam ni jamonoom moom boo ñàkkul mokkal moo xewoon ak euh, yu baree bari nit ñi tàmbalee woon ginnaaw téere yu mag yi nga xam ni dañ leen taalifoon ci yeneen jamono yeneen temps taalif leen espace rawatina ci Euh, réew araab yi mu indiwaat leen ci jamonoom gën leen a synthétiser ba dugal ci ay xalaatam ak yu baree bari ba gis nañ loolu ni mu ko may mu yeesal xam-xam nga xam ne yeesal boobu mi ngi ak mi ngi continuer ba léegi ndax boo gisee ku mel ni sëñ Abdourahmane mu sëñ Abdou Khoudoss yàlla nañ ko suñu borom yàggal te may ak yowal li mu jël def ko ci ay band ak i CD day dugg ci yeesal googu ndax moom tam dem nekk na jamono yoo xam ne ñàkkul mokkal noonu rek euh, doyatul ndax am na ay jumtukaay yu bees yoo xam ne amul woon jamono sëriñ bi mu def ko ci Eh, ak tamit ñu bari ci yoon wi tamit di jël ci ay site internet li nga xam ne yemoon na ci band yi wala ci téer yi di ko ci def rek ngir yeesal njàngin wi ak xam sëriñ bi ak xam diine eh, beneen fànn bi sëriñ bi yeesal muy wàllu yar ndax système éducatif bi eh, li ci ëpp li ñu xamoon boog jamono li jiitu sëriñ bi mooy dangay ñëw ci sëriñ mu jàngal la li mu la war a jàngal bàyyi la nga dem sëriñ bi moom boo xoolee bi fi bàyyam nekkee ci loolu la nekkoon waaye bi mu amee Euh, tawféexu mën a taxawal système boppam li mu woote mooy ni ngeen ko xamee daa woo dongo yi ne képp koo xam ni njàngum kese muy enseignement resque wala théorique moo la tax a jóg mooy ni ñu daan jàngalee maanaam daara yi bëri na ci réew mi mën ngaa dem waaye képp koo xam ne nag da ngay sàkku ngërëmal suñu borom ci ànd ak sëriñ bu lay tarbiya di la di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ñëwal ñu dem kon dafa mel ni sëñ bi dafa réformer système éducatif bi yamatul rek ci jàngi kese waaye xilmu wal xamal lay boole muy enseignement théorique ak application pratique kon sëñ bi yeesal na ci fànn ba gis nañ résultat yi ko yàlla defal nga xam ne sëriñ bi forme na ay xeetu nit yoo xam ni ci ci ci moom lañ ko tàmbalee gis nga xam ne ay maam Thierno ay Cheikh Ibra Fall ñooñu sëriñ bi ci système am muy defar nit ci la ci la defaree lool kon système boobu mooy wéy ba ku ni Cheikh Saliou Mbacké yàlla nañ ko borom euh, fayal yokk leeram gis ngeen li mu def xel koom ak ñeneen ñu bari ñoo xam ni ñu ngi góorgóorlu ci di di defar nit te lool di lu central ci euh, yeesalu sëriñ bi beneen domaine bi nga xam ni ci laay jeexalee ci diggante boobu ci yeesu Serigne Touba mooy ci côté résistance ndax euh, ni ngeen ko xamee euh, bi fi colonialisme euh, amee colonisation mag ñi ñu bari dañ daan xeex ñi di jël ngànnaay ak fànn yu bari bari waaye sëriñ bi bokk na ci ñi nga xam ni dafa théoriser li ñuy wax résistance pacifique moom lañ koy tuddee waaye muy daanaka résistance culturelle nga xam ni moom jihaad gis nga inni ujaahidu bil hulum bi tuxaa habdan xadiman wal muhaymin shahidu sama jihaat maa ngi koy defee ci xam-xam ak ragal yàlla muy lu xóot a xóot loo xam ne xam naa waxtu yi duñu may ñu dugg ci waaye muy loo xam ne dañ ko war a gën a jàngataat gën cee inspiré rawatina ci jamono joo xam ni contexte bi changé na waaye mu mel ni li Sëriñ baa waxoon ci fànn boobu dafa valable ba tey muy bu ñu tolloo ci jamono joo xam ne wala réew moo xam ne muy France bis bu nekk ci média yi ngay dégg radicalisation di dégg ay ay ay xeeti taxawaay ak i doxin yuy yuy gàkkal deru lislaam kon principe yooyu bi indi gënoon dundalaat yeesal ci wàllu ci jihaad bi xulu muy toqaa mooy le jihaad culturel dafa mel ni man dafa jotaat sax ci ñun ñu gën koo fàttali gën koo dundalaat ba adapté ko ci monde bi nga xam ni dafa mel dafay wut solution te ñu jàpp ni Serigne Touba bokk na ci solution yi nga xam ne mën naa saafara yooyu kon sëriñ bi moom kon yeesal na dañ cee joxe ay tegtal waaye mënoon na ko gën a mënees na ko gën a euh, kon daal yeesal ci gàttal rek mooy fexe ba principe yi ñu dundalaat ko ci jamono ji dëppale ko ba jullit ñi ni ñu ci waree dund ni ñu ko waree ni ñu ci ko waree dund ñu dundee ko noonu ba mën a defaru ba mën a am li ñuy wax fawzayni sax Sëñ Tuubaa lenn li ko fi indi du lenn du fawzayni muy tax ak ñaari kër yi muy àdduna ak alaaxira boo seetee sax téere bi nga xam ni moom la fondement yi ci waxin dëkkub tuubaa nga xam ne moo war a nekk laboratoire système boobu Matlabul Fawzayni la ko tuddee kon dafa mel ni Sëñ Tuubaa li ko taxoon a jóg mooy fexe ba jullit ñi fexe ba mbindeef yi texe àdduna texe alaaxira bi mu fi jógee mu mel ni dafa li ma ko waxee woon sànq dafa euh, bi mu fi jógee ci ci suñuy làqu ci suñuy bët ndax sëriñ bi du fi jógee dafay bàyyi ñoo xam ni ñoom la sas euh, ci déggin ñu àggale liggéey boobu kon loolu muy xalifaam yu tedd yi nga xam ni ak képp koo xam ne rek euh, kilifa nga wala ngay bi moo xam ne yaa ngi dox ci loolu sëriñ bi rëddoon kon loolu ñu seetlu ne kon yeesal googu dafay dafay dox Euh, ñoom nag kon ni ñu koy yeesalee boo xoolee dañu koy yeesal lañ koy def ci seen i wax ak seeni i jëf boo leen xoolee xalifa yi sëñ Tuubaa yi ak ñi fi wut sëriñ bi dañuy góor góorlu ci seen i wax ak seen jëf saa su ne ñuy ñuy yeesal li fi li ñu fi bàyyee euh, loolu nag sëriñ bi moo ko junjoon ni ma ko waxee sànq ndax bi mu ne zuriyatan tayyibatan tujaddidu ndax janabiin wasama tajtahidu zuriyatan mën nañ ko tekkee sët wala héritier waaye nag moo ne na ko tekkee de façon plus large koo xam ne rek dangaa taxaw ci pas-pasu yeesal li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi nekk ci mission boobu rek da ngay xaw a dugg ci zuriyatan boobu ndax loolu da nekk sëtu ruux mën ngaa am doo nekk sëtu deret waaye da ngay nekk sëtu sëtu ruux kon da ngay dugg foofu euh, ba tey euh, waxam la naa zuriyatan tuddimu alhamala saalih la yaa xadimu kon loolu it mel ni rek sëriñ bi day doon na junj ni kon am na ñu war a àggale liggéey bi ndax kuy ñaan ay sët yoo xam ne dañuy yeesal yoonu yontu sallallahu alayhi kon yow da nga fa mel ne ngaa junj ne kon am na ñu war a àggale sama liggéey te loolu dafa dugg alxuraan alxuraan boo seetee baatu zuriya saa yu ñëwee rek ci yonent yi mooy ñoo xam ne dañuy doon yonent yi ci seen i ci seen i euh, mission euh, loolu nag euh, boo ko seetloo tamit foofu diggante boobu ci bu sëriñ di jëfandikoo baatu zuriya dafa mel ni saa su ne da def ay conditionnalité yu tax ba héritier yooyu mën a àggale mission bi ndax ah, boo xoolee zuriyatan tayyibatan mooy ñoo xam dañuy sell ak tay tay alhamdulilah zuriyatan tayyibatan ndax jërëjëf Mawal sax mooy ñoo xam ne aussi dañuy farlu donc dañuy sell ba pare doon ñu farlu kon dafa mel ni bi sëriñ bi di junj ñu ko war a wuutu ngir ngir àggale liggéey bi def na ci condition mooy faw ñu nekk ñoo xam ne dañuy sell mooy dañuy am xam-xam bu wér di ko jëfe mooy di jëfe ndigal yi suñu waroom yi bàyyi tere yi ba noppi farlu ci ci ci loolu kon dafa mel ni sëñ Touba joxe ne condition boo xam ne naa zuriyatan tuddimu alhamdulilah saalih yaa xadimu loolu it leer na mooy suñu waroom may ma ay sët yoo xam ni wala ay wu ay kuutaay yoo xam ni dañuy sax ci jëf ju baax alhamala saalihan kon ñi mën a àggale mission boobu faaw ñu dajale condition yooyu Serigne juñ junj ci bayit yi euh, kon condition yi li ci jiitu kon mooy ay jikko kon jikko yi dafa mel ni ci la ci la ci la ñuy mën a condition la ngir ñu mën a yeesal jikko yi bu fa nekkul yeesal gi du mën a am kon dafa mel ni man noonu laa ci loolu laa ci dégg euh, ci gàttal rek ñu xool xalifa yooyu ku fi wuute ku ci nekk ci ay anam yoo xam gis nañ ni yow maanaam yeesal nga Euh, bu loolu riir rek gën a dégg ni ma ko waxee ci njëlbeen gi sëñ Sidi Muxtaar mi taxawaayam fan lañ koy mën a lañ koy mën a déggee euh, xalifa yooyu yàlla nañ leen yàlla fayal ndax lu ñu am tey ginnaaw yàlla ñoom la da ngay seetlu ne ku ci nekk yàlla mayoon na la tawféexu sa jamono la mu laaj mooy contextualisation bi da nga koy xam xamin ko doy waar koo xam ni sax boo koy analyser nii rek dalay jaaxal ci ñoom maanaam dégg gi ñuy dégg seen jamono ba mën a jël principe yi Sëriñ Tuubaa bàyyi woon dëppale kook seen jamono te du ñu wàcc yoon wi loolu loolu doy waar la ci yu Serigne Touba Baye nga xam ne loolu da ngay nga xam ne tawféexu Serigne bi la ñu joxe ci rek ay tegtal yoo xam ni dina tax mbir mi gën a leer ci ku nekk ci ñoom nga xam ni eh, doomi Serigne Touba ñoom ñëpp wala sax ku ñuy tudd tudd Serigne bi wala xale wala cheikh yi ay ñu tudd ci rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkkul ñoo tooge woon xilaafa gi eh, bu ñu jëlee ku mel ni eh, Cheikh Maodo Moustapha nga xam ne moo ko fu njëkk a wuutu moom jamono ji mu ñëw mu jamono ju doy waar ndax moom défi bi mu njëkkoon a am mooy lañuy wax remplacer sëriñ bi ci waxin te loolu di lu lu jafe ndax moo yi àggoon nañ ci sëriñ bi foo xam ni ngir gis keneen ku dul sëriñ bi jafe woon leen lool. ba am na ci xisa yu baree bari yoo xam ne xam naa jaruñu ci dugg ci ñàkk dégg ni am na ko ko war a wuutu nga xam ne yu jafe la euh, bi bi mu ñëwee mu mu mu yeesal euh, yeesal gi saa su ne li may seetlu ci sama analyse mooy dafay dañuy def jëf yoo xam ne day dëppoo contexte bi. ba pare ñu am ay jikko yu leen may ñu mën a jëfee loolu ndax dafa mel bu ñu amoon jikko yi duñ ko mën a def wante lu am solo euh, Cheikh Moustapha bari nay jikko ndax principe bi Serigne Touba waxoon lépp da nga ko ci gis muy yooyu ma doon wax sànq jaamu yàlla ci tënk rek ibaada wal xidma ndax mooy moom laa tuddee doctrine euh, Serigne bi ndax Serigne Touba Abdoulaye wa Xaadimu Rasuulihi la mooy jaamu yàlla ak maanaam euh, liggéeyal Serigne bi ñoom ñëpp da ngay gis ne dañ cee maase kon loolu principe bi du soppeeku waaye ngir contextam dafa mel li mu gënoon laaj bokk na ci nite nite mooy maanaam xam li xew ba pare jëfee ci ci ci nu dëppook jamono jooju muy ak nite Cheikh Moustapha bokk na ci jikko yi ñu ko gën a ràññee yàpp naa ne mooy nite xam lu ci nekk dam ca war a doxee nga xam ne lépp du ko teg rek ci baatin noonu waaye day xool ni kat jumaa ji laaj na ñu am ñu indi materiel bi Touba mu ne kon nañ defar raay boo xam day jóge maanaam njaareem ñëw tuubaa ak nam ca jëfee tubaab yeeg lu baree bari ak ñi ko xam ni dañ ko waroon ginnaaw ni mu fexee ba euh, ku ci nekk fexe na ba jëflante yow anam gu rafetal goo xam ni dara yàquwul ci gàttal euh, waaye Cheikh Moustapha euh, lu am solo am na ci benn xisa bu ma ci leeral ngir wane capacité d'adaptation bu may rénovation boobu benn xisa bu koy wane sëriñ bi en 1925 fekk jotoon na autorisation li ñuy wax daf jumaay Touba ndax sëriñ bi bu jug dundam tubaab yi may ñu ko woon mu génn njaareem dem fenn waaye jox nañ ko autorisation mu def jumaay Touba nga xam ne ko gënoon a ñor projet yi mu fi bàyyi ci la bokk euh, mu joxe ci ndigal taalibe yi tàmbale ci liggéey nga xam ni comme ngeen dégg administrateur tàllar yi boobu ci ñu joxoon liggéey bi la bokk ba mu def sax doy waar 1927 euh, sëriñ bi làqu ci suñu bët Cheikh Moustapha war a àggale liggéey bi ci condition yi ma waxee yi ma ko waxee sànq euh, bi mu ñëwee nettali nañ ci mag ñi ne bi mu ñëwee ndax sëriñ bi mu fi génnee dañ koo denc ci mbépp gi ni foofu mu mu ne fan nañ ko fa def waaye ñu bari ci murid yi xamuñu ni jumaay tuubaa gi sañ Touba tàmbale woon nekkul ci jumaay tuubaa gii ñu xam mi ngi nekk ci fi ñuy wax jullikaayu it bi foofu la foofu lañ tàmbale woon liggéey bi ñu bëri xamuñu lool. Euh, bi ñu tàmbalee liggéey bi ci nañ ci ay nettali ba tey sëñ Mourou Moussa ñëw ak sëñ Mbacke Bousso ñuy nattaat yu bëri bëri bi ñu demee bay kii la ñu ne ci liñ nettali ba tey ni Cheikh Moustapha ci la seetlu ni jumaa ji kat dafa nekk ci kanam wan ginnaaw sëriñ bi euh, mu gis ne kon loolu warta mën a nekk man tam war mën a nekk ci la joxe ndigal ne jumaa ji nañ ko jëlee foofu yóbbu ko fi sëriñ bi nekk nga xam ni mu dëppoog ni ñu def ci rasulullah alayhi salaam nga xam ni bi mu fi jógee Madina ñu denc ko foofu ci néegu soxna Aïcha nañ ko nettalee nga xam ni jumaa ji dañ ko mujj def mu wër barab bi loolu sax xam naa am na benn débat foofu ci par rapport ak salafit yi ni ñu gisee ci ay li ñu tuddee la vénération des tombes waaye yu waaye xamuñu rek ci gàttal historiquement que ni jumaa ji ak tomb bi ak euh, mausolée bi bokkul woon kon Cheikh Moustapha moo joxe ndigalu ñu jëlee jumaa ji ci jullikaay bi yóbbu ko ci euh, fii jumaa ji nekk nii loolu nag euh, di lu am solo lu mat a seetlu foofu mooy euh, tashdid boobu moo tax mooy yeesal googu ndax lu tax am na ñoo xam ne bu doon ñoom dañ liñ ciy déggee mooy ah ndigalu sëriñ bi de moo nekkoon fii kon duñ duñ ko duñ ko soppi ndax sëriñ bi nii la ko waxee woon waaye moom am na niveau ak it ñàkkul baatin kashfu bu ko yàlla may mu xam ne ndigal li li ci ëpp solo mooy ñu def jumaa ji nga xam sëñ Tuubaa bu fa nekkoon mën naa mu soppi ndigal yi ne nañ ko def fële kon loolu am solo la ci tajdid ñu xam ne kon contexte bi dañ ci tenir compte ci bu ñuy bu ñuy bu ñuy jëf ñu jàll ci Cheikh Cheikh Modou Fadel Cheikh Modou moom it yàlla nañu ko yàlla fayal moom it liggéey bu am solo ci yoonu mu murit nga xam ni eh, ginnaaw yàlla bu yoon wi àggee fii eh, ci ci ci ci ci njàmbaaram ak ci mbaaxam ak ci li ko yàlla defaloon eh, bi mu ñëwee moom it mu àggale liggéey Cheikh Moustapha ndax li ma ko waxoon sànq principe yi moom du soppeeku boo xoolee jikko yi Serigne Touba daan woote yépp jàngale ko Cheikh Moustapha tegoon ci tànkam suñ Fallou bi mu ñëwee ci la teg tànkam nga xam ne ci dara kon loolu continuité la waaye ci méthode yi moom it bi mu ñëwee am na loo xam ne moo gën a dëppoog jamonoom ak li ko Serigne Touba xamal ñàkkul mu soppi loolu lool it lu am solo la euh, bari na waaye ñu jàpp ci rek benn boo xam ne am na solo mooy euh, màggal Touba màggal Touba loolu it balaa ma ciy dugg euh, mooy li may wax ci jikko yi rek ndax jikko yi ci la yeesal bi tàmbali moom it yàlla may ko jikko ju ju dëppoog li mu bëggoon a def jikko yi bari na ndax moom loo foo ko jël rek jikko rasulaa nga fi gis waaye bokk na ci bi ci gën a yéeme wala bokk ci bi ñu gën a téye mooy yaatu gi ak mbaax gi ak xajoo gi ak njaboote gi mu njaboote woon murid yi loolu nag di lu am solo ci contexte boobu ndax boo xoolee histoire murid yi histoire bu metti la dafa bëri ay crise bëri ay jafe-jafe ay épreuve euh, jamono Cheikh Moustapha bokkoon na ci li ko marqué mooy ginnaaw crise sëñ bi jóge fi nga xam ne waar la ci la Cheikh Moussa ko doon wax naan euh, defe naa Bamba dem na àdduna jeex na ngir Bamba dem na nga xam ne crise bu doy waar la xaw a nuur ak sa bi Cheikh Saliou soog a euh, loolu yamu ci waaye ci la ci la crise des années am nga xam ni crise bu doy waar la ci la deuxième guerre mondiale am ci la mbas ma ak yu baree bari yaa xam ni murid yi jamono yi wax dëgg yàlla dund nañ ci ay jafe-jafe yu baree baree bare bare waaye bi Cheikh Mouhamadou Fadel ñëwee mu mel ni tur wi sax da ko wuy mooy fadlul laa googu nga suñu borom gi am dafa ñëw ëndaale mbég mi boo gisee sax ci li ñuy wax l'imagerie populaire mouride da ngay gis ni Cheikh Ahmadou Fall mooy représenté cette respiration la nga xam ne mouride yi jógee daanaka ci ci tartar yi te boo xoolee sax euh, dafa bari daal ay coïncidence yu doy waar ci histoire yoon yoo xam ni day mat a seetlu te danga nga ci gën a gëmee rek sëriñ bi mbiram suñu waroom a ko ko yor kon bi mu ñëwee kon mu ñëw kon an ak jikko joo jikko yi njaboote ñëpp euh, xoromu ak yu baree bari nga xam ni kon moom mooy symboliser fatlu laa Euh, bu mu ñëwee kon moom mu dundal yoon wi ci anam yu bari waaye benn benn exemple rek laay joxe ci yeesal gi mu yeesal boo xam ne doy na yaakaar naa muy màggal gi ndax euh, lool it ñu bari xamuñu ko euh, murit yi loolu dama ci profité ngir soññe faaw gone yi surtout gone yi murit ñu gën a gëstu gëstu histoire yoon wi gën a gëstu principe bu yoon wi ndax bari na ci gone yoo xam ni booy waxtaan ak ñoom tuuti rek ngay xam ni dëgg-dëgg ni ñu waroon gëstoo sëriñ bi wala gëstoo ko yoon wi des na loolu nag day am jeex ci seen doxalin ci yu bare bare ñu bari xamuñu ni kon màggal gi ñuy wax màggala Touba euh, ci Cheikh Madou Fadl la tàmbale ci waxin ndax Serigne Touba moo joxe woon ndigal li euh, ni ñu koy nettali defe naa euh, bi mu wooyee seen bàll faal ak ya ca xewoon yëpp ak lam leen wax nga xam ni 18 safar moom yàgg nañ koo def waaye Cheikh Moustapha ci ak moom gisinam ak li ko sëriñ bi xamal ci ak niteem màggal gi mu gënoon a fésal mooy màggal gi ñu tuddee màggal Daaru Xudóos léegi muy mu xaram mooy. te mu dëppoog bi sëriñ bi ñibbisee Touba jóge njaareem ñibbisi Touba nga xam ni màggal kooku boo demee ci ay mbindam ay sermon yi ma dafa na nga ko ciy gis muy leeral màggal gi lu ko waral lépp dugg ci nite go nite googu rek di fàttali nit ñi ne bakkan bu mos dund di nga mos dee da wax ak day leen bu bis yi ñëwatee day leen jàng alxuraan day leen def salaatu ala nabi day leen def nangam kon moom màggal googu la gënoon a féetale fesal waaye bi Cheikh Amadou Fadil ñëwee moom yamul rek ci ne ah Cheikh Moustapha de da daan màggal rek ñu yam foofu mooy li may wax sànq te te li solo ci tajdid mooy soppi wala yeesal du weddi ka la jiitu woon mooy da ngay xool sa contexte li mu laaj ak li lay ci yàlla xamal nga defe ko te loolu du dàqonte ki la fi jiitu woon du weddi euh, moom mu woote màggal Touba nga xam ni woo ci murid yi nga xam ne ñu tàmbali di fa daje at mu nekk di ko def loolu nag di lu am solo lu tax ma mu am solo mooy euh, màggal sëñ Touba sëñ Touba inventé màggal Touba sëñ Touba màggal la wax màggal sëñ Touba màggal loo xam ma wax ko mooy boo leen delloo ci waxtaan yi fi Cheikh Abdou Lahad doon leeral yàlla ñu ko yàlla fayal wala Serigne Saliou nga xam ni dañ daan nettali at mu nekk bu ñuy def appel màggal condition yi ko sëñ bi wootee waaye boo leen seetloo eh, liñ ciy faral di wax ci tënk rek sëriñ bi suñ borom da ko daan teg ay nattu at mu nekk nattu yi di yokk mu dem ba at moo xam ni suñu borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na saa yu at mi ñëwatee damay damay dama lay fulaatal li ma la l ma li ma la joxoon eh, sëriñ bi loolu amee ci la woo ne leen man de suñu borom li ma defal sa cant gi ma koy sant man kese doyatul damaa bëgg képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nga bu bis bi ñëwatee nga santale ma suñu borom def naa noonu lañ ko nettalee euh, lan la ci teg cant gi nag maanaam ku koy def na ko def ci ginaar ba ci gileem waaye kenn déggul fenn fu sëriñ bi ne bu bu bis bi ñëwatee leen daje Tuubaa di ko def yaakaar naa loolu ñëwul ci benn riwaay kon Cheikh Modou Fadil moo woote ni nañ ko defee Touba loolu nag du lu am solo ndax lu tax ndax teg sam bokk la contexte sëriñ bi bokk la contexte Cheikh Moustapha ndax contexte am àggoon na ci murid yi tàmbalee bari tasaaroo ak yu baree bari kon dañoo soxla woon li ñuy wax defe naa ñoom si sa géographie tuddee lieu moment mooy ay barab yoo xam ni dañ fay daje espace surtout dans l' espace et dans le temps mu commencé di ko def ci Touba ndax Touba lu jiitu sëñ Fallou di di di taxaw Touba amul woon noonu benn importance ci ci ci dund yoon wi kon Cheikh Cheikh Modou bi sëñ Touba tegee fondement Touba dafa mel moom moo teg mur yi kon muy woote murid ñuy daje Touba at mu nekk loolu nag may yoon wi lu baree bare dèjà ñi xamantewul woon di xamante ndax murid yi tàmbali nañoo bari di gise ba ba màggal gi jur lii mu jur nga xam ni sur beaucoup de dimensions économiques sociologiques culturelles bari na màggal gi léegi benn rôle mu joué ba def ko sax jour férié léegi kon loolu di lu am solo loolu moo tax ba tuubaa màgg màggal Touba moo moo moo dundal Touba ak ak jumaa moo tax aussi mu may ko ba jumaa ji ñu mën di dajeewoo foofu di indi ba jumaay Touba àgg kon loolu di lu am solo kon Cheikh Amadou Fadal yàlla na ko yàlla fayal moom moo def yeesal googu ci gàttal rek gën naa xóot loolu kon yeesal googu moom maye moo maye yoon wi àgg fi mu àgg kon moom mënul ñëwul rek ne sëñ Touba wootuloon màggal tuubaa dafa woote woon màggal kese kon na ko ku nekk defee fa nga ko daan defee waaye dafa dafa yeesal foofu euh, Cheikh Cheikh Modou Cheikh euh, Cheikh Abdoul Ahad euh, suñu jàmbaar ji topp ci moom it di ku yéeme yéeme yéeme yéeme ci moom li mën a wax ci moom dafa bari kuy gëstu ci yoon wi ngay murit ngay ñàkk murit da lay frappé ci ni mu nekkee un point charnière ci ci ci trajectoire yoon wi nga xam ni baree baree bari moo ko liggéey moom it bi mu ñëwee am na lu jamonom laajoon loo xam ni dafa am jël responsabilité def ko ci yeesal googu ndax euh, te ñu mën cee lim rek benn boo xam ne yaakaar naa dina yomb ci murit ñu xam ko muy moom jikko ji ko yàlla joxoon mu dëppook jamono jooju muy dajaa am ful la ñeme dëgg am jamonoom da koo laajoon lu tax contexte am laajoon ko ndax it Cheikh Modou mbaax gi ak yaatu gi ak àggoon na ci murid yu bëri daanaka dëgg-dëgg nañu war a fonkee Touba ak yu bëree bëri xaw a des am ni ñu ma waxoon respiration la woon dañu daan dañu doon respirer ci ci jafe-jafe waaye ñu bëri aw cee dem ba topp mbaax gi ak yaatu gi ba yu bare bëri ñu si di ko def nga xam ne Touba eh, ni ko defe naa gars yi di waxee da ngay jaay ba ngoon nga nga nangam di dem jaajëfe galas ak yu bëree bëri kon mu mel daal yombaay geeg xéewal yi dem na ba murid yi xaw cee nuur maanaam bare bare ñu fàtte ko moom nag bi mu ñëwee nag mu mel dafa waroon recentrer loolu moo tax mu doxee ci noonu nga xam ni Euh, boo xoolee ni ñu organiser yoon wi ak ni mu recentrer la la ndigal ak yu bare bëri mun naa waxtu wi du ko maye moom moo ko moo ko gën a liggéeyaat li ci fees rek bokk na tere yi mu tere woon Touba nga xam ni mur yu bëri nañ loolu mënta nekk te mu teg ci lu nekk nag loolu dañ ko war a wax ndax ñoo jàpp mu njëkk ba ndigal ñëpp ko daan jëfe léegi la déedéet xalif yi njëkk yi li ñu daj daanaka xalif yi dajuñu ko nga xam ni ni mu ci nettali yu daw yaram bi mu ko teree ñu bëri di ko bind ay leetar di ko te ay murit a ko daan def murit yu bind xalifa Sëñ Touba wax lu ñaaw ak yu doy waaye mu yàlla may ko fulla boobu ak dogu gi ak ñeme dëgg gi ba kon ci wàllu jikko yooyu ci la ko yàlla defalee euh, li mu ko defal ma bañ cee guddal euh, bi sëñ yu ñëwee sëñ euh, sëñ Abdou Khadre moom it mu yeesal yeesal gi moom naka jekk da koo nekk da koo def ndax man ni ma ko ni ma ko xawal di misaale xilaafaam daanaka mooy imaamam rek imaamam gi mu nekkoon daanaka moo nekkoon mission kon moom ci wàllu sunna kon dëgg-dëgg moom ci la ci la wane ni kon mooy sunnatoo xaraagoog sëñ Tuubaa doon woote ko def Euh, ma ñu jàll ci Serigne Saliou moom it yàlla nañu ko yàlla fayal nga xam ne ñun ñëpp naa ko jamonante ak moom xam naa duñ ci guddal moom it daje contexte boo xam ni dafa waroon a yeesal bokk na ci domaine bi nga xam ne gis naa ni am na solo mooy sur le plan politique noonu laa koy tuddee ndax boo jëlee ku mel ni Cheikh Ahmadou Fadel ak sëñ Abdoulaat ci ñoom ni ñu gisee woon relation ñu ar ak homme politique yi moom laa tudd la vision corporatiste euh, de la politique ñoom dañoo jàpp dañoo war a jàppee jàppale nitu nguur yi ngir ñu jàppale diine ji wala yoon wi ci tënk rek bind naa ci téere jarul ma ci ñëwaat waaye ñoom kon loolu moo leen mayoon ñuy joxe ndigal naan nañ voteel Senghor wala nañ voteel Abdou Diouf loolu ñu gis loolu li mu jariñ yoon wi wala jariñ ko diine ji waaye Sëñ Fallou contexte bi bu ñëw dafa mel ni Sëñ Saliou moom laajatul ñuy sa ni ñu wax sa dirigisme laa ci wàllu politique ndax ni mu ko daan waxee bu ñu ko laajee lu tax yow doo joxe ndigal mu ne man ko damaa jaboote ñëpp ndax jamonoom àgg na Euh, configuration politique yeeg ak enjeu yi bokkatul ndax léegi daanaka euh, parti politique yëpp daanaka ñu ci bëri ci ay murit la ñu bokk ci moom kon dafa mel ni rôle d'arbitre ak rôle de euh, ci la gën a ci lañ ko gën a gën a gis ka ka yeneen ngir bañ a xóotal rek kon moom yeesal na ci fànn boobu ak ak ak yu baree bare sëñ Mamadou Lamine Baara moom it bi mu ñëwee daanaka sëñ Fallou lu andiwaat rek man noonu laa ko gisee ndax mooy yaatu gi ak bëgg nit gi daanaka am sañ Fallou nag moo ñëwaat ci ci ci jamonoom te mu am mérite bu am solo muy di sët bi njëkk a toog ci ci ci ci xilaafa gi te yàlla may ko ci diir bu gàtt bi mu fi toog mu liggéey fii lu am solo lu ñëpp teg bët ba sax li ñuy wax déjouer projet yi nga xam ne jàppoon nañu bi fi doom bi sëñ Tuubaa jógee daanaka dara du du mënati taxaw loolu dama bañ a guddal ndax waxtu mi ngi mi ngi dem kon e, ci ginnaaw kon ci la sëñ Sidi Mokhtar ñëw kon sëñ Sidi Mokhtar bi mu ñëwee yàlla nañ ko suñu borom yàggal may ko wér Euh, moom it mu taxaw taxawaay yu am solo xam naa li ñu ci mën a wax bari na euh, nga xam ni mag ñooñu ñu fi tudd ñëpp ku ci nekk indi na daanaka jikko ya nga ya nga fi daan dundal te rawatina ci contexte bi ñu ne nga xam ne ñu bëri jàppoon nañ ni euh, li ñuy wax bu fi doomi Sëñ leer des petits kon fii la mbir yi war a yam nangam yu bëree bëri mooy li ñuy wax la les prédictions sur la fin du mouridisme yàlla def ko mu am ay jikko yu doy waar macha allah ak yoo xam ni yu jéggi dayo la waaye ci jikko yooyu rek mënees na cee lim benn boo xam ni jàppoon nañ ni ci suñu analyse ba tey moo gën a dëppoog jamono ji te moom te mu mu jar nag ñun ñi nga xam ni ñooy tuddoo Serigne Touba ne dañoo doon ay taalibe Serigne Touba di jéem a roy jikko jikko jooju ci moom ndax jikko jooju dañoo jàpp ni ci li mën a gën a dundal yoon wi wala boog téye ko ci la bokk jikko jooju man jàpp naa ni mooy mooy ngor li naan ngor ngor ngor nag euh, ci ci tënk rek moom mooy rek sabrun jamilun bi ñuy wax ci alxuraan nga xam ni muñ la waaye muñ goo xam ne day rafet day rafet nga xam ni natt yi lu mu bari bari bari nattu nag bu ñu ko wax ñaar la nattu ci jamonoy tartar ak napp nattu ci jamonoy xéewal nattu yi lu ñu lu ñu bari bari bari yow la la tax a jóg mu yàlla suñu borom ak ngërëmal sëñ Tuubaa ci teggee sa tànk mel ni Cheikh Sidi Mokhtar jikko yi ñu ko mën a waxal bari na waaye boobu man man ci sama wàllu bopp ci yi ma gën a yem la bokk loolu nag mu mel ni rek da koo doon ne ci li sëriñ jii li doon wax sànq muy way juróom maamam wu tedd wa soxna Aminata Lo kon dafa mel ni ngor googu nga xam ne moo ko njëkk a moo ko njëkk a jëfe ci yoonu Euh, ci la ko ci la ko doonee ngor googu lu tax mu am solo euh, xam naa foofu laay jeexale mooy euh, contexte bi ñu nekk nii da koo laaj ndax am na borom xam-xam bu baax ci yoon wi muy sëñ Afe Ñang yàlla ko suñu borom yàggal mës naa koo laaj ci ñuy waxtaan ci ci yoonu murit ma ne ko yow lan nga gis ni bu ñuy wax menace ci yoon wi loolu moo moo mën a gën a bàyyi xel loo xam ne daal bu ñu ko bàyyiwul xel mën naa yàq lu bari ci li nga xam ne ñun moom lañ fi war liggéey sëñ Touba euh, moo wax ma ci ñett yu am solo euh, daf ne ma moom li ma gis ni ay menaces la ci yoon wi bokk na ci benn bi mooy bëgg àdduna bëgg àdduna nee na bëgg àdduna murit yi dañ ko war a gën a bàyyi xel ndax euh, li leen Serigne Touba liggéey bari na bari koo xam ne xéewal yi bari na boo xam bu ñu moytu rek dañuy fàtte li taxoon jóg xéewal yooyu yam ci xéewal yi loolu am solo la kon menace bi ñu war a gën bàyyi xel mooy bëgg àdduna te dafa mel ni yu bëri sax ñuy jàmbat ci yoon wi léeg-léeg boo demee ci ci dëgg-dëgg cosaan li bëgg àdduna la bëgg àdduna mooy danger bi njëkk te daanaka ni ko sëñ bi waxee raasu kulli charin maanaam bépp bépp xeeti ñaawteef rek ci bëgg àdduna la tàmbalee euh, ma ne ko bu ci topp mu ne ma beneen bi ci topp mooy koo xam ni dafa war doon référence te xamul ni moom référence la koo xam ni dafa waroon a doon modèle te xamul ni modèle la da ngay gis ñoo xam ne ci yoon wi dañoo waroon nekk ñoo xam ne dañ leen di roy waaye ñoom xamuñu ni sax looloo gën a garaaw du du doxali waaye ñoom xamuñu ni sax ñoom ñu ñuy roy lañ ba seen comportement sax du mën a dëppoog lool man sax ma dolli ci dara xamuñu ni sax dañ leen war a roy waaye sax ñoom dañuy wëlbatiku sax roy koo xam ne moo leen waroon roy loolaa ci dolli masalan da ngay gis koo xam ni dafa bokk ci sëriñ bi wala sax bokk ci seexu sëriñ bi waroon a jàpp ni moom ñi moom moo waroon doxalin doxalin boo xam ne ko war a roy waaye moom jàpp na ni milliardaire Sëriñ Tuubaa yi moom moom moom la moom la bëgg a doon léegi moom jàpp na li ko sëriñ bi defal milliardaire Sëriñ Tuubaa yi wala na ni politicien bi li mu am wala ministre bi wala wala président la la république kooku la kooku te ma jàpp ni ñun li ñu am euh, président amu ko waxoon naa ko kenn ku jege président mu may wax yu mel noonu ma ne ko man damaa jàpp li ma am seen président amu ndax moom de balaa muy doon président dund na lu mat 50 ans soo ko doon te naa am fii ak 10 ans président lañ koy wax dama damaa rek ñu fal ma te defuma dara lu tax fal ma kon loolu ma fal te yaakaar naa du dem bañ naan monsieur l'ancien surtout sëñ Touba kon li ma may loolu bu ma ko bàyyi di topp koo xam ni li mu am mën na koo ñàkkoon dafa may ni xaw ma sama bopp kon waaw kon deuxième danger bi mooy waroon noonu nekk référence du doon référence ñetteelu danger bi mooy euh, woote yi woote yu bari yi woote yoo xam ni day jóg nuuru Serigne Touba te du Serigne Touba xam ni bari na léegi da gis ñoo xam ni dañuy woote woo di di yëngu waaye boo xoolee ba ci biir maanaam dari Serigne bi nekku ci naa loolu nag eh, waxtaan wi lu may ñu ñu sori ci léegi nag ci contexte boobu kon li ci mën a dimbali murit yi man maa jàpp ne mooy ngor googu sëñ Sidi Mokhtar nekk ndax ngor moo lay may lu xéewal yi bari bari bari bari yow li la tax a jóg man dara jarul la dara jarul la nga jaay sa ngor dafa mel ni loolu nag eh, buñ ko xamee mooy mën a saafara li ñuy li ñuy waxtaane ci yoon yi ndax bari na ñu fiy jàmbat yoo xam ni eh, ay ay ay ay di ay nit di la jaral yu baree bari yoo xam ne xam sa bopp nga xam ne sëriñ bi moom yàlla ko xamoon histoire am sëñ seen waxtaan fi mu jaar xam ne histoire yu méttee métti la waaye yàlla da koo li mës a nekk ci li mu nekk muy jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa ba su ko wàcc kon loolu ñun ñi nga xam ne ñooy woote woo sëriñ bi di ay ndaw war na nañoo gën a xool ci doxalin woo ndax doxalin boobu mooy tax ba li ñu am ci sëñ Tuubaa ko jaay moo tax ba murid tamit dara du fees seen bët lu sëriñ yaakaar naa ne loolu am solo la yemul nag ci yoon wi ngor googu damaa jàpp ne li ñuy jàmbat ci Sénégal ak ci àdduna yëpp moo ko mën a saafara bu ñu jëlee même ci wàllu politique politique nga xam ni euh, mënuñoo wax réew mi wala comportement te wax ñu politique bu ñu fexe bu ñu amoon maanaam classe politique boo xam ni dañuy respecter valeur yooyu muy valeur éthique ndax ngor mooy valeur éthique rek nga xam ni ñoom dañuy nekk ay nit ñoo xam ni réew mi da leen di gënal seen bopp nga xam ni li ñu leen jox privilégié fi ñu leen teg ñoom ngor seen ngor du leen may ñu ñu ñu jëfandikoo ko ngir leneen kon yaakaar naa la bu amoon kon réew mi dina saafaraw dina tax tam kilifa diine yi ñoom it ñu xam ni li ñu leen jox du ay privilège waaye ay responsabilité la ndax bu la nit ñi toppee ngir yàlla di la jox seen alal wala teg la fenn fi nga bokk ci élite yi loolu du loo xam ne da nga koy jël di ko réew wala di ko di ko ko kii waaye sa ngor ngor mooy nga jëlaat loolu ñoo ñu la jiital lépp loo xam ne waruñu la cee gis rek nga góorgul ba doo ci nekk ndax dara gën a metti kilifa boo xam ni maanaam xalaatul njabootam nga xam ni day fàtte li ko booleeg njaboot gi kon loolu defe naa moo koy moo koy mën a saafara Euh, ndaw ñi aussi mel ni ñu war a mel ndax euh, coow li lu mu bari bari bari njàng mi mën naa bari université yi bari waaye nit ñi bu ñu amul ay war valeur u delluwaay yoo xam ne seen deret moo koy bañ seen seen jëmm ndax nit war na àgg bu foo xam ni bu bëggee def safaan sax maanaam deretam du ko ko may li fekk amuñu façon nit ñooñu rek euh, traque des biens mal ak yu baree bari du du jeex te réew mi du tege ci yoon kon xam naa ma ma bañ a guddal li ma bëggoon wax weesu na foofu xam naa ñuy sant bu baax jotaay bi euh, bu ñu wax bi bu fekke ni am na lu ci dëng wala loo xam ni euh, gënal suñu borom ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax. wasuli liman yadoo bi saadata daarayni waxfir li bihi waliyaju walilazi daani li nasmihi min amni wa ridwani wa bi saadati wa bi ximaam an jumlat الأصواء والعناية وبالنجاة من سؤال والعصاب وسكرات الموت رب والحساب وبالبصارات وبالسرور عند المماتنا وبالنزور وسليا وسلما على النبي وآله مع أصحاب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki taalib yi fi teew yépp maa ngi jël kàddu ci ndigalul sëriñ Mouhamadou Xabaan mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di jégalu bu baax ci kàddu yi wala kàddu yi ndigal sax waaye man baaxoo ma wax ci mbooloo waaye nag mëneesut a ñàkk a waxit ndax li yonent bi tëdd bi wax naan ku sant yi ku santu nit ñi doo sant yàlla ku def lu baax warees na ko sant kon ci ndigalul sëriñ bi noo ngi sant waa kër Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne moonu may tey xéewal gi tey ba ñu yendoo fee nekk di def lu baax di fàttaliku dund ku baax ku tedd ko ku nga xam ne ku dégg ñuy wax ci moom dangay jàpp ne ku dundoon lu yàgg-yàgg la te boroom xam-xam yi nga xam ne gëstu nañ ci ndekkee ku gàttoon fan la ci dund waaye ku guddoonu fan la ci jëf moo tax tey mbiram di law ba yegg si fii tey ñu di ko waxtaanee kon xam naa ne wax ji liñ ci mën a jëriñoo ci li ma ko dégg man mooy nu xam ne jëf ju baax rek moo am solo ndax loolu day firi ay laay yu bari ci alquran yoo xam ne yàlla da ciy wax ne man amila saalihan min dakarin aw unsa wa mumin fa la xayaatan tayiba ku def lu baax day ci jamono yàlla jëf jooje dana la ko fay ci àdduna ak alaaxira ñu ne fayu jëfuk àdduna nu muy deme mooy fay gi de bokk na ca daf lay lawal njaboot goo xam ne dañuy baax di wéyale sa jëf ju baax jooju nga doon def kon tey ay sëtam tey buñ toogee fii tey a ah, mat kilifa jataay bi mën a waxtaan ci diine luñ mën a dégg loolu day wane ne kon ak dundam barkeel na lool donte gàtt na ci ay bis kon li ngeen fi wax lépp noo ngi leen ci sant bu baax di sant seen jëwriñ jii fi nekk nga xam ne moom yaram ak tegginam tax na bu toon a moom bu wootee ñëpp ñëw muy Abdoul Aziz Guèye wax dëgg yàlla moom ñëpp ràññee nañ ko ci yar ak teggiin ba tax na ñëpp a sawar ci mbiram noo ngi ñaanal bu baax di ñaanal kazalika sëriñ euh, Bamba Thiam mi nga xam ne ci seenu mbokk la seenu jarbaat la waaye nag dafa jaay lépp jënd ko taalib bi moom itam di liggéeyal sëriñ bi ci kër sëñ Baara waaye di liggéeyal sëriñ bi itam ci mboole murid yëpp ndax xam ngeen ne euh, moo jiite fédération bi nga xam ne moo lëkkale murid France yëpp kooku kon muy seen mbokk di seenub taalibe kon ñoo ñaar dong doyoon nañ bu ñu woo ñu ñëw waaye rawatina nag ah, ku toll nii eh, Serigne Abdoul Aziz nga xam ne borom xam-xam la